ci tertub ñi leen bi rek ñu ngi ciy àndaat ak kenn ci suñu sëriñ Mawlana Seydi Mouhamadul Basir Ibnu Tahiru Ndaw borom kaala gi yal na fi yàgg lool te am jàmm ñu ngi lay siyaar bu baax. waaw ñu ngi bu baax euh, Lamine di julli ci yonent bi gannaaw bu ñu sant yàlla di julli ci yonent bi gërëm ku tedd ki nga xam ne mooy tax ñu dajee fii di Mawlana Seydi Laajo Ndaw ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum yow ci laaj yu gàtt. ci site internet Farokh TV laaj bi nga xamante ni moom lañ koy njëkk laaj rek mooy lan mooy taxawaaye moom ci kër maamam ban yoon la tànn ci kër maamam Maolana Seydi El Hadji Abou Ndaw waaw sama taxawaay si kër Maolana Seydi El Hadji Ndaw yoon bi mu tànn si kër Seydi El Ndaw mooy ya mooy yoonu taalibe ak euh, euh, sëriñ waaw ci lañ tànn moo tax ñu ñëw fii tey fas yéene euh, liggéey te yàlla rek tax ak fas yéene jaamu yàlla te yàlla rek tax fa yéene dimbale lenn ci eh, askan wi ci kem sunu kàttan ak sunu mën-mën ba ñu matal seen siyaara comme ni ñu ko bëggee ak ni ñu ko xalaatee ak ni ñu ko war a defee Seydi Hadji Omar Ndao bokk ci rijaal yi nga xam ne képp koo xam ne ni jëfal nga leen eh, yàlla dana la fay sa jëf jooju sa doomu aadama amul yitte gu gën a màgg ci kaw suuf liggéeyal yàlla liggéey rasulullahi yittewoo ngërëmul yàlla tey ak fii ak fa ñu jëm ndax foo xam ne nii loo fu yóbbu doyul kon souvent loo ko liggéeyal woon nga ko xeeb si laa yoon a bokk ci rijaalullaahi yi nga xam ne taxaw nañ ci ginnaawu barke bi yonante di jëf-jëfi yonante bi di di doxee doxu yonante bi li nga xam ne la ko suñu borom santoon si jaam yi tey jii nag euh, ñi xam loolu ci moom euh, bëgg loolu lañ xeme moom ci yonante bi ñu euh, xemem ko ci moom ngir mu yeggal ñu ci yegguwaay boobu tey jii moo waral suñu teewaay fii ok macha allah ñu laajal la beneen laaj rek balaa ñuy tasaaroo beneen laaj bi ñu lay laajal rek mooy yaa ngi ànd ak liggéey bi daayiratu ansaarullah daayiratu ansaarullah yi ñoom benn famille la bu bokk ci kër Seydi Hadji Ndaw wala ay mbooloo ñu jëwee ko feneen lañ wala déet ak lan mooy seen taxawaay daayira ansaarulaahi benn mbooloo la moo xam ne njaboot Seydi Hadji Ndaw lañ ndax ñii ay doomu muqaddam lañ ñii ay doomi doomi muqaddam lañ ñii ay doomi ay taalibe lañ ñii doomu sëriñ bi lañ kon ñoom ñëpp rek njaboot Seydi Hadji Ndaw lañ yittewoo sëriñ bi ak ngërmaane yàlla fii ak fa ñu jëm loolu mooy an daayira ansaarulaahi